bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di baalu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante tey bala ñu cee agsi ñu dellu dénk sunu bopp di dénk bokk jullit yépp ñu sax ci taqwallah mooy di wéyee ndigali suñu boroom tey bàyyi ay tereem ndax foofu ku ci teg tànkam bu dee dem cib xare am na jumtuwaay bu doy sëkk jumtuwaay waaye bu dee dugg loo xam ne it xamut nu mu ciy génne ndax ay moroomam dugg nañ ca lab ca biir su gànnaayoo taqwallah yàlla dana ko ca wan bunt bu yomb boo xam ne sax mën naa fekk mu ubbi ko mu jaar ca génn waaye bu dee koo xam ne it day dem di wuti li nit ñi wuti te war koo wuti tam dagan bu ca ñépp jaaxlee it su fa yóbbaalee moom taqwallah bis bu set yàlla ubbil ko bunt yoo xam ne day mel ne dañ ko ko faa tegaloon ku dul ku jaar yoon moom jaar du ko mën a gis yàlla nañu ko yàlla jàppandalal bokkoon na nag ci yi tax lislaam waaj waaj tay wu rëy wi mu waaj door a agsi ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina muhammad mooy yaari mbir yu rëy mën naa am ñett mën naa am ñeent waaye day leen da leen di fekk ñoom ñaar ba ca jiitu mooy defar nit moo ca jëkk ña jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci ëpp te yoroon bataaxal bi mu yoroon yàlla xam gu mu xam diisaayu yonent bi ak yonent gi taxoon na ku ci nekk dafa am lu mu ca xaaj jox ko waaye bi seydina muhammad ñëwee sallallahu alayhi wa sallam la dajale lépp xamal ko ne ko yow mii ci sa jikko rafet sak lewet moo ne noonu mu ko tagge tekkiwut ne ña ko jiitu woon dañ koo amutoon waaye nu yonent bi mel day gën a fedd li ñoom seet nañ meloon ndax lañ yoroon la yonent bi mujj yor sa jikko ju rafet sa mat sëkk ci nattukaay yépp sa mën a muñ sa kanam gu leer sa ëmbal ñépp jàmm fas yéene ku ñëw fi yow jariñu nattukaay yu mel noonu ak ya ko niru yu bari la yàlla teg ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan ko yan bu dis ne ko na nga fexe ba kenn ku nekk jag kenn ku nekk nag bu jagee ñi dëkk ci ak kër kër gu jag lañuy daal yoon ñu génn ci koñ bi koñ bi jag jag nag dama xamut mu baalaxaam nu muy demee waaye su koñ bi jagee quartier bi jag ab dëkk day daal di jag am na dëkk boo xam ne seen jagga bu ñu ko nettalee nit ku bari ay ree day defee ne reetaan kese la te fekk njàngum kese la ci ay jamono wax nañ ne ay soldaar dañoo jaawale woon ay yoon dugg ci ab dëkk fekk mag ña toog ca pénc ma magi dëkk ba ni ñu koy defee ci dëkk yu bari ci àll bi bi ñu doonee soldaar yu xonq nag ak yu ñuul jaxasoo ci biir ne ana ne fii mooy fan ñu ne ko fii de mooy dëkk sàngam ki ko wax sax ñi mu wuti si xool leen daa yuur mu ne ana borom dëkk bi ñu ne ko fii de kenn ku nekk ak këram mu ne waaw ku ci mag ci yéen ñu ne ko ñun ñëpp a maase mu ne ànd yoonu dëkk sàngam ku ne ne sa moroom joxañ ko ba ka gën a jege ka sës ci mbooloo mu mujj moo gën a jege yoon wa mu joxañ mu joxañ leen yoon wa bi ñu génnee ñoom ñépp nag bañ des fa ñoom ña fa toogoon am ñu wàññiku waat bëgg leen a laajaat ba xam bu ñu demee ba ca kanam bu defaatee yaari yoon wuñ cey jël dëkk bépp laal li dawandoo ñoom ñëpp génn dëkk ba mu gent loolu mooy lan mooy ñoom ñëpp ñoo bokk ak bëgg ñoo bokk lu ñuy bañ ñoo bokk lu ñuy moytu te kenn bëggut moroomam dugg ci fitna ba tax na ñoom ñëpp ñoo maasindoo dawandoo te xamuñu lu waa ji dana wër si mu ne dama leen di laaj bu ñu demee ba ci kanam yoon wi def yaar wan lañ ciy jël ñu ne ko woo ci jël baax na waaye wóolu taxul ñu wóolu ñoom ñëpp dañ ne nañ dem ndax ñii bu ñu wàññi ko wootee ginnaaw xam nañ fi lu ne mën na cee juddoo ak beneen dëkk boo xam ne benn waaye war aw fa seg na dañar ne fii mooy dëkk sàngama ñu ne waawaa mu ne ah yaakaar naa léegi tey mu baax de def ko yett yoon ñu ne kii naan léegi tey mu baax bu dee si waatee nu muy demee kenn ku ne ne sa moroom koo koy laaj dem naa kii na dem naa waaye ñoom ñëpp it ñoo bokk lu ñu yéeneente rek kon dafa mel ne ñooñu lañ leen nàmpatal ci biir kër ya mooy kenn ku ci nekk lu nar a ñëw ci moom bu dee jàmm la na ko ñëpp bokk su dee lu nar a ñëw ci moom tamuy fitna su ko ñëpp mënta bokk ak ñoom it nañ bokk tuxoondoo gannaaw mënuñoo bokkandoo di ko dékkoondoo defar kenn kooku nag bu yàggee ba dëkk baaxaale ca dëkk bu nekk wàll ko moroomam ñooña la leen di boole lu yomb lay doon ndax mën nañoo bokk ak bëgg di bokk ak bañ muy kon defar kenn jóge ca defar mbooloo ñaareel ba mooy kenn ku nekk bu ñu ko defaree mu xam ne yan bi yàlla doon yan ay gaayam yi mu tànnoon ci biir jaamam ñi ginnaaw xas na ba dugg ci ñi bokk ci xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ca aw am na ca wàll wàll wam ca yor nag gën naa yomb fuuf la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yana woon moom kenn ndax moom ak ñu bari ñoo ko séq moom ak ñu bari ñi ko séq nag bu ci ku nekk defee wàllam lépp day daal di baax te kenn du ci sonn benn coono bi bu ñu demee ci alquran ñu ngi ñuy wax ne nañ teg suñu tànk ci ragal yàlla taqwallah te xam ne loolu ab yan bu diis la yan ba nag dara jiituwu ca fexe ba diggante ay bokk yu am ñagas-ñagas nga jóg fexe ba mu rataxaat su fekkee diggante ba ratax na nga fexe ba na ratax googee loo ca mën nga def ko ci ba mën a sax su ko noppee nag su de su noppee nag yéen ñëpp ngeen àndanoo nag su ngeen ne yàlla yow lañ topp yàlla nangu ko fattaqu llaha wa aslihu data baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminin dañ ne daairab muminuun ya nag la cay dugal nit mooy koo xam ne suñu ko waaree buñ ne ko yàlla nee na rek xol ba rëcc ab dënam rëcc buñ ko jàngalee aayab alquran ba mu xam fa waajay teg la muy wax mu dolli ko ak jàpp ca lam jàppoon ba ko waaji wax gutub aaya dañ ko ne yàlla nee na rek innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaana loolu kum nekk ci moom yàlla xam na lépp waaye nit ñi mën nañ koo xam mu ànd ak moom di dem fu mu jëm dugg fa ak moom moom la wolof di lépp naan li nit di gënee moroomam buy sangu du ko summi mën naa summi mbubbam summi mboolem lam saloon waaye li tax nit ñi di ko gëm di ko bëgg nekkul ci yére yu muy sol ndax yére lu muy sol lu muy solo ko summi rek la su ko defee nag jaamu yàlla ya ñuy bokkandoo di ko def ba nit ñi xàmmee ko ci jàkka yi ak jumaa yi ak fépp fu ñuy waxee lu baax wala ñu di ko fa defee door caa topp waaye lii moom jullit yi dañ ko war a yëg ci seen seen diggante ak seen mbokk jullit bokk na ci nag liy ñagasalub diggante te dara ne ko fa woon te su amee ay jullit war nañ caa jóg dox ca seen wàll bokk na ca li xew léegi tey jottali ay wax ak anam gu mën a doon moo xam muy loo xam ne bu ko waxee ñëpp déggandoo ko ku ne ci waar ko sax mu fekk ko fa mu dégg ko mu jaar ci rajo walla loo xam ne day jaar ci ku amatu télévision doo doo ko doo ko ca gisee loolu it mën naa yaatu waaye dem naa dem a dem ba gën a yaatu loolu ba nga xam ne kenn ku ne mën na ko yor ci jibaam ñëpp gisandoo ko lu xew rek ñëpp gisandoo ci benn yoon moo tax ñi nga xam ne dañ ciy yëngatu am nañ sas wu diis woo xam ne sax moo gën a diis fuuf wi benn benn jullit yi yanu ndax mën ngaa jot li tasaare loo xam ne fitna day juddu loolu sax moo taxoon aaya bi ma jëkk a jàng ci suratul xujuraat yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayanu looloo ko taxoon a wàcc dafa am koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni woon ci ak giir gannaaw bu giir ga ñëwee woon ci yonent bi ñoom ñépp tuubandoo benn yoon mu ne leen kii nag laa leen di booleel su ngeen demee mu leeral leen seen diine lu ca way xamul nga laaj ko kookee nag ba mu fa nekkee ba jóge fa ba di fa jóge di ñibbisi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax na waa dëkk ba def seen pas-pas yaag seen góorgóorlu ko ak lañ waxoon nañ ko ŋëbe mooy ko ñu jox ko yóbbal yu bari yoo xam dañ ko ne joxal ñu li yonent bi hadiya sallallahu alayhi wa sallam lii yaa ko moom yow mënuñu laa fay waaye lii dañ ciy feeñal suñu yéene li ci des ñu bàyyee la ak yàlla ak yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah dem naa ba ñëw de waxut dara ci la ko gaa yi ne woon joxal ñu ko yonent bi waxuma laa di wax la ko fa gaa yi jaar ak moom tam lew ko yonent bi ne ko dem nga ba ñëw mu ne waaw te ku yàlla di déey jërut nit di la wax ku yàlla naan yasalunaka an kada wa kada qul daañ la laaj si nangam ak nangam wax ca nangam kooku jërut nit di ñëw di ko xibaar yonent bi ne ko naka moom mu ne ko ñooñu de ku yebbu sàkk ci ñoom pexe ndax daa mel ne wàcc nañ ba jekk ci ñëw jëflante si ak yàlla ko bi yonentam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne kon kat waajtaay jeex na jàmm jeex na ay ca ñooñu betteetuñ yàlla ne ko ah ya ayuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fa tabayyanu faasiq nag mooy koo xam ne benn tànkam mi ngi ci diine benn tànkam ma nga ca bitti diine bokkut ak munaafiq munaafiq mooy koo xam ne léppam jullit la waaye saa bu naree metti mu ne ah man kay su ma ko xamee woon nii mën na ko wax ba mu senn waaye nee na ko bu ab faasiq ñëwatee kon atte na kooku yàlla atte na waajoo gi doon wax mi ngi tuddoon walid ibnu uqbata ibnu abi mu'ayth bu faasiq ñëwatee jox la xibaar nang ko leer lu ba mu leer nañ balaa fitna judd daan yéen jullit yi xanaa xamul leen ne yonent bi nekk ci yéen su dul woon ak moom musiba am mapp gi ngeen fi ne mapp saa bu xaxtani ko ngeen aw ko saa bu jàpp ngeen dékk ko yàlla moo leen ci xiir nim leen xiir ci bëgg yonent ba buy xaxtani ko ñu aw ko di ko diwoo buy jàpp ñu di ko aw di ko naan ak sangoo ndax bëgg guñ ko bëgg ba daram wër ta neen li ma leen di bañal ëllëg mooy ngeen dugg ci bunt boo xam ne bii fam leen jëme ndox du fa am kon bu xibaar ñëwatee na ngeen ci ne tekk yonent bi ne ah kii nag moo gën a xam la xew ca dëkk boobee kii fa jóge ndax kooka ma kii may wax ma nga foofa mi ngi fii mi ngi ci yoon bi daal di fa yeble kam yabal ba muy dem taseeg gaa yi ci yoon wi ñu jëm si ci yonent bi ak yu bari waat yu gën a bari yañ joxoon waaja te waaja waxul lu jëm ci loola mu ne fu ngeen jëm ñu ne ko dañuy sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di firndeel suñu topp ci moom ak suñ pas-pas bu dëgër ci ginnaawam ndax yàlla moo ne woon yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaami wa yuxrijuhum min adulumati ila nuuri bi idnihi wa yahdihim ila siraatin mustaqim kon xabaar boo jot tasaare benn benn yi koy def te jànguñu métier mi nga xam ne seen téléphone la ñuy yor rek léeg-léeg sax ñu tàggee koo xam ne jotagut a faar léeg-léeg ñu tàggee koo xam ne nit ñi dañ koo bëggoon a suturaal ba ñu néew ñu ca man dara fekke ko waaye danañ ko siiwal ba far buñ koy toppatoo nit ñi lëjal leen fa lool ndax gaaw gawañ ko gaaw a siiwal am na ñoo xam ne bu ñu fi bàyyeekoo ku nekk fu sori koo xam ne jant ba dana fa solu yàgg moo la koy wax fii ci Sénégal na la nangam xew na nga ne ko yëg guma ko dee mu ne am na de te fekk wér na kan moo ko ko wax mooy kenn ku yëg rek te xamut luy sekk rek xamut lu ñu war a nëbb ak lu ñu warta fësal mu ne ko tànjang doon am tëll ma rajax lu mu dégg ne tëll nag mu ne damm na de ñi ñëw fekk kooko ne jom mu taxaw ak nim nopp moo tax yàlla di wax ci alxuraan ne yàlla buggut te du bëgg mukk kuy fésal loo xam ne ku ko dégg loxo dem gémmiñ laa yuhibbu llahu aljahra bi suui min al qawl loolu nag muy tasaare lu wuta tasaaroo bu dee ay diggante la jëm diggante diw ak diw day daal di jur ñaaw njort diggante kañ ko wax ak kañ ka ko wax ak kañ koy wax ne moom lañ ko wax ci moom léegi la ñu tase foo xam ne sax duñ bëgg a nuyoonte te dara leeru leen ca dañoo dégg rek moo ne bu njëkk day ci at yu mujj ci ginnaaw lu way dégg ci rajo daana la jaral mën a waat waxuma laa di ko gis ci ab journal ñu bind ko ci moom bind moom moo fi gën a yàgg waaye léegi day bari na lool lu ñuy wax ci rajo yi wala télévision wala ñu bind ko sax gannaaw bi ñu topp ko ne demee wutoon noona te ña ko bind wala ñu wax ko duñ ci am genn kersa loolu nag su boobaa ñi nga xam ne ñoom la ñuy bind ci ñoom ak di jaxase seen diggante ak seeni bokk war nañuy tey ndax ñaaw njortu ci nit su yàggee bañante dikk te bañante bu jotee noonoo day daje ay topp te ku noonoo ak mbokkum jullitam wala mbokk mu bokkal réew mi képp lu ne mën naa xew seen diggante yàlla nañu ci yàlla musal luy jur njort nag yenent bi dànkaafu na ci jullit gannaaw bu ko yàlla waxee ci aayaat yooyu ma jàng yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla ñépp maa ngi leen dénk ngeen wattandiku wattandiku leen nag bu ko alxuraan waxee da koo tere tere goo xam ne ku ko def bakkaar fekk ko ca innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rajsum min amali shaytaani fajtanibu ijtanibu kathiran min addan ndax njort bu ñu moytuwul mu dugal ñu ci toggoo bakkaar ndax suñ la ko waxee nga jottale ko keneen koo ko jottale ko keneen yëf yi gën di tasaaroo li muy mujj jur mooy tajassus bi alxuraan di waxaat bi ci bi ci topp mooy gaa yi day duñ duñ sos waaye man dañuy dolli soo gëmee ne duñ sos waaye dañuy dolli dana la jaral jóg sal saw dàll ak di laaj ñu jóge këram ba xam li ñu ko waxee noonu la demem déet daal di soppi kookee ab waxkat bu dul dëgg ndax ginnaaw dañ ko jox cër ba teg ko ca kër ga moom it waru faa nekke luñ bëgg xam lu leer luñ dégg ci waxukaay yi képp suñ ñëwee mu leeral leen ko leeral gu leer nañ ñi ba dolli ca sax ndax day wane ne jege naa fiñ may laaje ku ci war a xam dara la wax lu dëgg day tàmbali te wax lu dul dëgg ni ko sëñ mag bi jàngalee jar na moytu ndax nee na saa bu ko nit defee fii ci kaw suuf si yàlla day fab wax gu dul dëgg googu muy fenn def ko jëmm mu dem ba fa soob yàlla rëg-rëg jë mooy waral ña gën a jege suñu borom ñoo naan loolu lu mu kooko ne ubbil leen na ba noppi ñu ubbil ko mu ne man maay fenu diw ñu ne waaw gannaaw fenu diw moo war a rëg-rëg ji diw ci boppam moom nu mu war a toll ñu leen tolluwut nen de waaye leen dafa rëy ndax la daaneel ñay ak nam toll loxob gone sax mën a teq bal ba mun a jàng-jàng moo tax mu na ngeen moytu yenn njortu yi ci nit ki njortu sax fene ko tane li fen di rëy yonent bi moo tane moo tane fene ko tane ndax bokk na ci fen rek mooy lu mu dégg nettali ko lu mu dégg nettali ko da ngay gis yenn médias yi ñu bind xasriyan maanaam lii ñun ñoo ko njëkk a wax ñoo njëkk a am xibaar bi xibaar bi kat mën naa bañ a doon sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér jumaa ji muy tabax barab sàngam def na ca ñaari milliards ñëpp ne ah kooku yàlla jaral na ko xibaar bi du doon loolu ren de yóbbu na ñaari téeméer nit mag yoo xam ne bëggoon nañ ko lool te mënuñu ko am loolu doon xibaar bi de te loolu bu ñu ko waxee ku doon nattab la ba xam jàkka jar na loolu doon déet dana ko ko daal di jaral koo xam ne bëggoon na ku mu yóbbu màkk te xamut ba xam yóbbu màkk baax na am déet ku ne daa war a demal boppam xame ca waaye loolu lépp dañ ci teg tànk waaye daal bi ci gën a yéeme léeg-léeg ñu siiwal xibaar boo xam ne am na ñu muy doon dañ naan koo xam ne kii rek fii lay liggéeye faa lay liggéeye duñ tudd aw turam waaye bu dee ku laal ci diine dara dañ naan tànjang aw turam ak ku santam ku ko gis xam ne kii lañ doon wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy na sëkk bàkkaar bu nit di toggoo te du ko wàcc ba faw li fekk tuubut mooy lu mu dégg nettali ko lu mu dégg rek nettali ko bala moo def tabayyun wala tasabut waaye lu dikk ci facebook am wala yi ñuy jote tawaasul ijtimaiyaat yépp mu daal di koy publier ku nekk jot ca yonent bi nee na doy na sëkk nit kuy am bàkkaar te du yëg ne bàkkaaram ko tiim lu mu jot rek tasaare ko ci xibaar mës naa wax bis ne du ngeen ñëw ma wax leen loo xam ne daanaka xaw naa jege ci daraja ku woor weeru koor nam ko war a woore ba noppi lam cay am wala mu julli ba noppi lam cay am nam war a jullee wala mu saraxe nañ war a saraxee lam cay am ñu ne ko axa kay mu ne defar ab diggante kuy defarub diggante saa bu dendee ak ku wooroon ba noppi la ku woor di am ku defarub diggante ba mu jag mën naa am lu toll ne la ko waroon di am ndax la ka wooroon la muy am moom képp la amal njariñ waaye defarub diggante day amal njariñ li ko tàmbalee bisu keroog booba at day tukki su fekkee jàpp nañ ca lañ lañ leen wax ba seen diggante rafetal daan ne luy tasaarib diggante nag moom ñii ab rasoir di def kawar ku ne xam na ne rasoir wala lañ set bu jëflantee akub jeñ bu saalañ bu noppee leneen la ñuy waxati bopp ba di soppaliku leneen du tudd ab jeñ waaye ab nen lay soppaliku lay tudd yonent bi ne waxuma lañ set ni muy defe ni muy def kawar de waaye fexe ba ab diggante bu waroon a ànd tàggoo day wat ci nit ki la tuddoon diine ci moom ba moom ci boppam pas-pasam yàqu na te te pas-pas yàqoo jëf amatu fa solo moo tax jullit dëgg-dëgg bu ànd ak sagoom te yor xelum jullit jullit dëgg-dëgg nag kenn du ko mën a nax kenn du ko mën a tiital kenn du ko mën a jaaxal ndax loo ko wax mën la yàlla yàlla yàlla yàlla rek moo tax jullit dëgg-dëgg rawatina ci suñu jamono daa war a ñaw ñaw goo xam ne xabaar bu ñëwati mu dem na alxuraan nu ma ciy def mu ne ko fa tabayyanu dama waxoon naa wax ba tey am na yeneen ci njàngiinu alxuraan yi ñuy ñuy jàng fa tasabbatu su jaree jóg jógal laajte laajte ga nag bokkut ak laajte gi ma doon wax léegi ñi ko jot a dégg ñëpp ne leen ndax loolu mën naa nekk ñu ne ah kiimaan la de wala mën naa nekk su fekkee lu nekk la tamit ab safaan ngeen fexe mu bañ a siigu ña koy dégg moom bu ñu ko déggee ci yéen yéen bu siiwee ba noppi ñu def la mel na mag daan def ku ku mësoon dëkk Tuubaa ku mësaan ñëw wax ko ci nit lu kenn mënta dégg danaan la ah kooku da nga koo xamul rek de waaye loolu moom du jikko moom xam naa ko am koo xam ne soo waxee ci nit xibaar day bàyyi ba nga àggal mu yónnee ndànk ka nga doon wax ci moom bu ñëwee nga ne ko kii di nga doon wax loo waxoon ci moomati moom it fa la nit ñee toxe bàyyi ko waaye dafa am lu xorom lool lu ñuy jottali xibaar di wax dañ naan duñu wax ka leen ko wax duñ ko mës a wax ci àdduna ndax daa bokk ci ñu naan ne xibaar doo ko doo wax ka la ko wax kum doon waaye nëpp nëppal bépp day am ñu muy doon rek ñu nëpp nëppal waaye am na ñoo xam ne bu dee ñoom dañ ko naan tànjang su ko defee nag coow la topp kooka bu dee bu dee lu ñu cay am ñu am ko ca su dee lu ñu leen di dolli ñu dolli leen ko waaye loola bu dee lu ñuy am la da leen wóor na bu ñu ko lekkee du rees su dee ndollan la itam lii génn kilifa ma soon wax bu dëkk Tuubaa rek bañ ko ne sa waaja saa su nekk dañ koy dolli garaat te daa jëflante woon ak yow nga tëkk ko wala boog nga ne bàyyi naa ko yàlla rek dana leen portemanteau de balaa mën a daanu dafa diis kon li nit ki def di dolliku na doon lam war a def jaar ko fa mu ko war a jaar su ko defee buy dolliku moom lu mu dolliku jéego yi mu dox jëm kanam du doon jéego yi coono waaye jéego yi dalam xel lay doon te it fa muy jëm doon fu fa ko gënal waaye su dee dolliku goo xam ne danga yàq derum nit wala nga bind ci moom loo xam ne ba faw dañ ko koy xoole loola moom dolliku ga portemanteau rek la lu mu gën a diis gën a mën a daanu te bu daanoo mën naa daan ci ànd yére yooyu bu bu jëkk bu jëkk bañ daan fa ànd teg ko ci ron portemanteau mën naa daanu ci ànd boo xam ne bii xal ya fayagut mu tàkk tàkkaale néeg ba yàlla nañ ci yàlla musal moo tax tasaare xibaar ku ko moytuwut léegi tey mu dugg ci daayira ràmbaaj te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na woon ab rambaaj du dugg aljanna romb na bis ay armel ne ah armel yii de am na ci ñaari bàmmeel yoo xam ne suñu boroom mi ngi mbugal boroom mbugal mu metti ñu ne ko lu ñu def mu ne benn ñoo fonkutoon bu ñu demee wanag set ga ca war ñaareel ba it dañ daan dox ci li ñuy wax rambaaj li gone yi wax léegi loo wax na ci nangam lay dox ñooñu dañ daan dox ci ràmbaaj moom la leen suñu borom di mbugale yal na yàlla musal ci loolu am na fa alxuraan di wax it mooy li ma doon wax léegi rek dana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw ci yow lu mu giñ giñ lu mu toroxlu toroxlu lu mu wàcc wàcc lu mu la bankal bankal bu mu taxagun nga jàpp ay waxam ndax nit ñi am na ci xalaaf mooy kuy giñ te gëmu ci dara mahin mooy koo xam ne fu mu dem nu muy def ba am képp lu ne jaral na ko ko su dee mar ay tànk am sax jaral na ko mar ay tànk ak lu mu taq taq هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين آه هماز يلا ناج القرآن ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده am na ñoo xam ne li leen di boole ci nit ñi tudd naa ko léegi dañuy def di yokk rek di yàq der di yokku di tasaare yoo xam ne kay waru koo tasaare di yokku te yàlla nee na ci aaya yooyu dañoo defee ne alal moom ku ko xas ba am lu ne jig na la rek te nii mu demee fii ci àdduna lay demee fële déedéet yàlla na yàlla musal ci loolu yenent bi dal la wax ne ab rambaaj ku ci ku ci dugg rambaaj dana yàq loo xam ne ci wenn waxtu ab jabar mënu koo yàq ci at li ab jabar di yàq ci at di tas ay diggante bu dee ku koy ku koy jëf ku jëfandikoo loolu la di dëddalawaate di notal kii kaa di naawtal ñii ñuy dem te duñu xam fu ñu jëm li muy yàq ci at rambaaj mën naa yàq lu ko raw ci lu yéesu waxtu moo tax imaamul Ghazali daana wax ne saa bu ñu ko indilee ne kii ab rambaaj la ba xam loo koy àtte mu ne luy rambaaj ñu naa ko dañu naan diw wax na ci yow nangam def na ci yow nangam yéene na la nangam ni ngi dox ci sa projet yi nangam ak nangam wala sa dossier ba du sotti da ko naan ah la Omar ibn Abdul Aziz daan wax di la lay wax daa am ku ñëw wax a wax ba àggal Omar ibn Abdul Aziz ne ko ah yow day mën nañoo xool li nga wax ba xam wér na am déet bu fekkee li nga wax wér na bu fekkee li nga wax lu wér la bokk nga ci ñi yàlla di wax ci alquran yaa ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu bu fekkee wérut ñu xam ne da ngay fen bu fekkee wérut ñu xam ne da ngay fen su fekkee wér nga bokk nga ci ñi yàlla naan bu ñu la indilee xibaar bul gëmagul in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu su fekkee dëgg la su fekkee nag gëstu nañ ko mu wér da ngay daal di bokkaat itam ba tey ci hamazin mashaa'in bi namim bu la neexee nag ñu bañ a def yooyu yépp nga seet ba xam li nga wax dëgg la am déet ba xam ñi nga ko wax ci ñoom dëgg la am déet mu ne wax dëgg yàlla day nañ ma jéggal rek waxtaan a neexoon rek te kenn laaju ma ma bëgg caa dugg rek jékki-jékki def li jàngalekat yi wax jazbul intibaax jazbul intibaax mooy xool mbooloo mépp di bëgg a nelaw ngay wax wax ñépp di jayaxu nga ne mas ngeen a gis nag woo xam ne bi mu amee doom ab cum ab ab ab kii laa doomi gëléem laa doomi gëléem mboccoor mas ngeen a gis nag woo xam ne ba mu amee doom mboccoor la ñu ne déedéet mu ne ma nga nee ñépp fomm mu nelaw ya doon nelaw ak jayeexu ya jóg di xool ci palanteer yi mu ne toog leen daa jëm nii waaye xam naa ba waññi ko ñépp danañ ko mën a gis daal di dugal la mu bëgg dugal ci diggante boobu loolu donc moom dugal ci wax ji kat waaye diw xawma ko sax dama dégg rek mu ne ko kon boo xam nga tuuba ki sartam kon ñi nga xam ne dañoo gaaw lool ci siiwal wala ñu def ko métier su dee ay jullit lañ yàlla na yàlla dimbale bañ dégg ba bañ a bokk ci daaira faasixuun yi bañ a bokk ci jawaasiis yi bañ a bokk ci nammaam yi bañ a bokk ci jëwkat yi yàlla na yàlla defal dégg ak topp te yàggalal ñu fii suñuy kilifa te yàggalee na suturaal ndax kat saa su nekk ay xabaar yi nga ñëw di ñu jéem a gàkkalal suñuy kilifa di ñu jéem a tàggale ak ñoom waaye ñun engagé nañ te duñu wàññeeku mukk ci àdduna yaxfirullahu lana wa lakum wa li